ñu ngi am mbégte di dalal directeur général adjoint UNESCO euh, ñëw indi ay euh, mbébét yu bees ci wàllu collaboration euh, sunu collaboration ak UNESCO yàgg na ñu ngi koy leen bi ñu amee école normale supérieure mais ñëpp xam na ne école normale supérieure moo nekk léegi FASTEF ñu ngi jokkonte ak ñoom si wàllu formation maître yi euh, si wàllu euh, approche pédagogique yi mooy xarala yu yees yi nga xamante ni mooy jox jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñu utiliser. ah pour mën a gën a mën a ñoŋal jàngale bi nga xamante ni moom lay jàngal ndaw ñi xale yi nga xam ñoo nekk si éducation secondaire. léegi nag euh, am na beneen page bu yees bu ñu war a ubbi suñu collaboration bi euh, ñëpp xam na ni université Cheikh Anta Diop ak université publique yi euh, am na ñu fi mu nekk ni problème infrastructure pour dalal étudiants yi parce que étudiants yi ñu am bac chaque année dafay gën a yokk ba tax na université yi ñu ngi jublu si wàllu li ñuy wax enseignement hybride am na ñuy parti pàcc boo xamante ni ñu koy def si numérique ak beneen pàcc boo xamante ni ñu koy def si présentiel si biir classe yi lool nag dafa laaj ay gëstu pour mën a xam euh, yan pexe la ñu mën a lal pour que étudiants yi nga xam ñoo def hybride euh, wala étudiants yi nga xam ñoo def numérique li ñuy jàng du mën a wàññeeku par rapport étudiants yi nga xam ñoo def présentiel euh, ni ñuy jàngee tam façon jàngalin bi ñu koy gëstuwaat parce que ñëpp xam na suñu pédagogie bi fii pédagogie inversée la verticale pédagogie verticale c'est-à-dire que professeur mooy ñëw sotti xam-xam ndongo yi léegi ñu bëri euh, fii sax rawatina fii si si université bi ñu ngi euh, euh, proposer beneen yoon pour jàngale mooy li ñuy wax pédagogie inversée ñi nga xamante ni ñooy jàng ñi xam ñoo ni jàngal ñu mën a di gën a jokkoo si anam bi nga xamante ni ku nekk day indi dara mais du professeur bi day ñëw rek sotti xam-xamam gis des tamit déglu ko te du def benn effort am aussi wala ñu efficacité interne. ñëpp xam na ni UFIC euh, université francophonie euh, taux de transit bi dafay dafa dafa gudd licence ñëpp xam na ni ñetti at la mais boo demee dëkk yu mais ni France si région yu bëri 30 pour cent étudiants yi kas ñoo ko def si ñetti at yi boo xoolee suñu réew yi tamit même chose nga fiy observé donc soxla nañ tamit réduire transit bi ak wàllu financement bi euh, dëkk yu bëri famille yi dañuy participer si financement éducation mais boo ñëwee suñu université yi fu mel ni UCAD étudiant bu nekk mu ngi fay junni pour at bi yëpp bon te li si ëpp day am bourse am aussi logement bon loolu su fekkente daf fekk ni étudiant bi amul doole c'est très bien mais su fekkee papaam wala yaayam wala famem am nañu moyen pour contribuer war nañu mën a contribuer pour parce que loolu dafa yokk doole université bi euh, yooyu yëpp dafa nekk ay pàcc yu bees yoo xamante ni suñu partenaire da koy couvrir ñu am si nag mbégte bu baax euh, dalal. Euh, directrice générale ñu ubbi euh, page yu bees yooyu am yaakaar ni ak collaboration bu bees bu ñu signé euh, suñu collaboration dina mën a gën a yaatu ndaxte dina mën a couvrir FASTEF mais na couvrir aussi yan faculté yi nga xamante ni dañ gis seen bopp ci partenariat bees bi.